sëriñ daara yi ñu ngi continuer di dëggal yalwaan ci biir daara yi pour ñoom ñi gën ci sénégalais yi ci daara yooyu lañ jaar te ci yalwaan lañ jaar sëriñ Salim Mbacké daara moo ko defar Alaaji Ibrahima Niass mi ñuy waxtaan moo ko defar sëriñ Cheikh Tidiane Sy mi fi jóge lu yàggut pour Souleymane li nag ak i naatangoom suñu jaarul ci daara yi fu fulaal leen émergence du am Sénégal gouvernement tamit émergent bi mu bëgg jikko yu ñu wax yàqu daara yi ñoo koy defar nguur gi ñu nekk ba ci senegal yëpp ba ci adduna bi ñu fi gën ñëpp tàmbalee ci yonent bi dara moo ko produire waaye émergent du am ci Sénégal fekk ñi ngi xeex dara yonent bi nag moo ne xayrukum ki gën ci yéen man taallama alquran mooy ki jàng alquran ba pare wa allamahu mu dellu di ko jàngale ñoom sëriñ daara yi nag nanguwuñu ñu leen di tëkkaleek daara moderne yi ndax ña fay jàngale ci ñoom lañ jógee waaye it ànduñu ci ñi nga xamee ni dañuy wooye seen bopp sëriñ di jariñoo xale yi ngir wut alal te nag fas yéene nañ leen a xeex daara yii génn ci ñu mokkal alquran internat génnewu ko daara yii tey ñoo yor diine ji ñoo yor alquran bi waxtu jàng dafa am waxtu yelwaan dafa am taalibe yelwaan taxawaalu wuñu seen soxla la ñu mooy lu ñu lekk lu ñu yóbbul seen sëriñ yelwaan nag waxtu guddi wala yenn waxtu yi dafa xaraam te loolu nag ñun sëriñ daara yi ñoo ko war a régler gouvernement ji boppam dimbali ñu donte nag gouvernement bi dimbali ñu sëriñ sas taalibe 500 kuréel gi nga xam ne moo ëmb sëriñ daara yi nag dafa fas yéene jàppale daara waaye mu ngi ciy woo bépp jullit ngir alxuraan di gën a am taxawaay lislaam di gën a jëm